seen gisee yàlla na yàlla barke liggéey kenn ku ci nekk métier ma nga yëngu yàlla nekk yëngu ci yokk bu yëngu képp ku xëy di wuti la ngay wuti ba mu des mooy yàlla yàlla na ko yàlla yombalal te barkeel la ko yàlla yàlla dimbali xale yi toll ci njàng mottali seenum njàng ñu toll ci liggéey yàlla jox leen liggéey yu barkeel lu ñu am yàlla nañ ko muuree ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu jiite yàlla na yàlla jubal moo xam ñu jiite diine ji wala ñu jiite penc mi yàlla def ñoom maandu jub ak ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ngir jëriñu askan wi bu ñu kompolo ngir jëriñoo askan wi yàlla na yàlla musal ji feebar bi mbas mi yàlla ko fi yàlla jëlee yàlla na moom mi nga xam ne moo am kàttanu jëlee ko fi yàlla ko fi yàlla jëlee moom mi nga xam ne moo am kàttanu musal ñu ci yàlla ci yàlla mu dalul yàlla ci dégg doy ku mu dal yàlla yàlla saafara waaye yal na yàlla dimbali jullit bu ci faatu yal na nga teere ji àjjana ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, yal na yàlla sàmmali suñu diine ak suñu ngor ak suñu mbokk yàlla bu ma xajab àdduna ak alaaxira suñu way dawlu yàlla yéegi leen ca barsax seydina muhammad allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum ñu nekkoon ci julli mbooloo jariñ li ci nekk ak ni nga xamante ni moom la ñu yonente bi encouragé ci ñu bàyyi xel ak ni mu mën a defaree société waxoon nañ ni képp kuy ju eh, ku dul julli ci mbooloo ta eh, di ko tey di ko bañ a def sans ngant moo doyadi ngëmamu feebar kooku dañ ko war a faj nit ñu war a demee hôpital di faju cancer kooku noonu la war a dem ñu faj ko ki nga xam ne day demit yëgul ni gën soppi ko am na ci comportement kooku war naa seeti aw deminam war nañ ko lijjantil aw deminam waaw moo tax julli mbooloo dafa am solo yonent bi nag wax ni ci ñaax yi muy ñaax mu ni maa min salaasatin fi qaryatin wala fi badwin laa tuqaamu fihimu salaa illa stax illa illa qad istaxwada alayhim alsheytaan fa alaykum biljamaa fa inna diba yakulu min alganami alqaasiyata yonent bi wax ni pour encourager julli mbooloo mu ni amul ñetti nit yuy nekk ci ab dëkk walla nekk ci ab koñ ñetti nit yu nekk ci dëkk walla ñu nekk ci ab koñ nee na góorgóorlu ñu bay ànd di julli mbooloo nee lu dul seytaane wër na leen ndomba ku seytaane wër ndomba nag bisuma la baaw mooy doo mën def lu jag seytaane bu la waree nopp dootoo mën a defal yàlla lu jag boo saraxee mu xajamal ko boo jullee mu xajamal ko loo mën ci defati mu xajamal ko nee nag ñooñu nag moo tax képp koo xamante ni doo dem jàkka nanga xam ne yaa ngi ci côté yaa ngi ci giir boobu maanaam ñi ngi yi wër ndomb mën a yàq seen jëf jàq bu yomb ci nga bokk waaw loolu nag ku nekk bu nekk war na koo daw nee na moo tax mu ne fa aleykum bil jamaa maa ngi leen di dénk ngeen góorgóorlu di fonk mbooloo julli mbooloo waaw yonente bi mos na toog ci jàkk benn waaye tardé eh, julli boolo jug di julli mu ne benn waaye eh demal dimbali ko ndax mu am mbooloo demal dimbali ko jëm jàppale ko ci julleem te kooku julli na ba pare yonente bi santaane pour rek julli mbooloo kon julli mbooloo dafa am loo xam ne nit ki daf ko xër ci waaw lu ay détails loo xam ne kii mais lu jullit dëgg-dëgg da ci war a foog moo tax yéen yàlla yonente bi ne fa aleykum bil jamaa da ngeen góorgóorlu ci julli mbooloo da ngeen xam ni maanaam till te till du kenn ku dul cheytaane nee na till moom bu dee songu gétt nee xar bi bett ko rek lay lay fàtt loolu mooy ki dul dem jàkka moom la seytaan yi jekku waaw yonent bi moo ko wax nee na tind bu dee topp gétt pour fàdd ko nee na euh, gàtt bi génn bedd ko gétt bi lay fàdd mooy jullit bi dul dem jàkk moom la seytaan yi gën a mën a jekku moom la gën a ñime mais jullit bii dem jàkk seytaane du ko ñeme kon loolu it yëpp yi di ay njariñ yu dem jàkk kon yàlla nu yàlla xëy ñuy dem jàkk waaye yàlla yàlla may sellal dem gi ba lépp lu ñu fa def yàlla nu ko yàlla nangul wasalaamaaleykum wa rahmatullah